walla ji ñàkk respecté sénégalais yi ñàkk xam enjeu politique yi de ce pays ñàkk xam fi réew mi jëm ñàkk xam fi sénégalais yi xalaate ak fiñ toll ak conscience bi ak yeewu teg sénégalais yi weesuwul nga jël photo euh, Bassirou Diomaye Faye di ko collègue Amadou Ba naan da ngay def sondage pour élections yi di ñëw mënuma comprendre loolu kan <laughs> mënuma comprendre nit jël temps di coller Amadou Ba ay Bassirou Diomaye fay naan ay élection ñii nga xam ne si ñoo ab ils appartiennent tous au passé politique de ce pays ku ci mel ni ay Amadou Ba Macky Sall ak Idrissa Seck ak ñoom Khalifa Sall wax dëgg fa yàlla war nañoo mën a ñun yeewu yeewu goo xam ne duñ leen boole sax ci suñu programme politique ak suñu avenir réew ci benn côté nag booy booy booy collé jël Abdourahmane nga collé ko Bassirou wala nga jël Bassirou Kole kooku ay ñoom Déthié Fall ay ñoom Pape Djibril sax quand même mais Amadou Ba non ni ñu ko mën a ñun suñu bopp ñun suñu suñu dof xanaa yëpp ñu ko mën a boole ci avenir politique dëkk bi ñun moom loolu moom na moom ñoo rek yeah